نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يزهن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي noo ngi amaan tey jàkkaarloo yéen ak jataay bii nga xam ne bu ngeen jàkkaarloo ak jataay bi ak barab bi ñu nekk xel yëpp danañ demaat ci jàmbaari lislaam ja déggaat bayit wi nga xam ne moom lañ ubbee mu di sëriñ tubaa seex saalihu mbakke yàlla nañ ko yàlla fayal waa ahlu tarbiya di ñi nga xam ne sun borom taw feexa na leen ba nu ganee àdduna ba àdduna yi bëgg am ci ñoom ab cër seeni wayjur jox nañ leen yàlla te mu jaar ci loxo yi nit ku nitu yàlla ku àgg ci yàlla mu toqi leen yar leen tarbiye leen ba def ci ñoom la nga xam ne moom la Serigne Touba daan def ci mag ñi bañ am ngërëmul yàlla nag ñoo ñooy ñoo dellusiwaat nag fas yéenee waxtaan ak seeni bokk waaye fa yéenee waxtaan ak adduna bi. muy ndigal lu bàyyi ko ci Serigne Seex moom Serigne Saalihu yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jëm siwaat ci ñoom muy liggéey bi nga xam ne jàpp nañ ne naka jekk dañoo jàppoon ne dañ leen di dimbale si waaye duñ am jot bay mën dimbale ji keneen. ba sun borom may leen ngërëmul yàlla nag bañ delluwaat ca kër ya tey jii liggéey boobee nag sëriñ bi teg ko ci seen loxo nag na leen yéen a a fekkaat dongo ya fañ nekk lañ leen daan defal ngeen fay bor ba te di ko defal dongo yooyee loolu moo di lan moo di liggéey bi nga xam ne su jamono masa agsi fii mu war doon nag kañ le 6 décembre ca tooli xel koom waaye ñooy xamal bokk yëpp nag ne mbooleem ab Baye faal seexub baay Fall bu mas a jaar ci daara ji nañu xam ne ñoom fu nu jëm mooy lagan lañu jëm ngir bàcc gerte ga jëri ko roñ ngooñ ma kon ñoom seenu wàlla ngoog seenu sasa ngoog fu ab taalibe Baye Fall mën a ne man ngaa xam ne kon lagan la ngeen di wuti. di jottali ndigalul Serigne Souhaïbou Ridwane Ndoye mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ ñun ñi féete diwaanu Touba te war a dal Xelkom Daaru Salaam ak lagan mbokk yi ñu fas yéene soññ jëwriñ yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi tënk ko ah, ñi nga xam ne it ay njiiti section lan topp ci ñoom ñoom ñëpp kenn ku ci nekk nga xam ne loolu moo ci sa wàll képp koo xam ne dégg nga sa tur nga soññ sa waa mbooloo te xam ne liggéey bi ñoo ko bokk eh, janatul maxwaa sëriñ Mor Mbàkke xelkoom mooy jëwriñ ja daaru tansil sëriñ Jili sekk mooy jëwriñ ja Touba Belal sëriñ Mortala Diop ñu ngi koy soññ mooy jëwriñ ja daarul muxti sëriñ Xaadim Seen ñu ngi koy soññ mooy jëwriñ ja daaru Rahman sëriñ Fall ñu ngi koy soññ mooy jëwriñ ja Ah, ndindi sëriñ Muntaxa ñongu ñu ngi koy soññ mooy jëwriñ ja xosnul mahab sëriñ daam ja ñu ngi koy soññ mooy jëriñ ja ah daaral xuddoos sëriñ bara sàll ñu ngi koy soññ moom mbooloom ñooy mooy jëwriñ ja daaru salaam sëriñ seex ñu ngi koy soññ moom mbooloom mooy jëwriñ ja ah daarul minan bàyyi sàmba jaw ñu ngi koy soññ moom mbooloom mooy jëwriñ ja umul xuraa sëriñ Moudou Camara ñu ngi koy soññ moom mbooloom mooy jëwriñ ja daaru alimul xabir sëriñ Cheikh Moudou Guèye ñu ngi koy soññ moom mbooloom mooy jëwriñ ja Taïba sëriñ Cheikhouna Bousso ñu ngi koy soññ moom mbooloom mooy jëwriñ ja ah Mbay Jóob Touba Njaareem ñu ngi koy soññ moom mbooloom mooy jëwriñ ja Ndoka sëriñ Cheikh Fall Touba ñu ngi koy soññ moom mbooloom mooy jëwriñ ja njàppandal sëriñ Jili Thiam ñu ngi koy soññ moom mbooloom mooy jëwriñ ja daaru salaam ñibingal sëriñ Seexuna Njaay ñu ngi koy soññ moom mbooloo mooy jëwriñ ja sëriñ Ousmane euh, Diouf section mbal ñu ngi koy soññ di soññ sëriñ Mouhamadou Ndiaye Aliya di soññ sëriñ Abdoul Ahad Dieng euh, daarul Khuddoos section daaru Khuddoos Baye Siri Soare euh, quartier Mawahibou Pakki Ndonge daaray Janatul Mahwa Touba Abdou Abdou Fall di soññ Janatul Mahwa sëriñ Aliou Ndiaye di soññ Touba Sora sëriñ Khadim Fall section ginnaaw bi ñu leen sante gërëm leen si jàppale yi weesu ah ñu leen di tàllal loxo si lii ñuy dëgmal ajjuma bii ba accès le 6 ñu fas yéene am départ boo xam ne fii si kër sëñ euh, Serigne Touba Cheikh Saliou si wetu jumaa ji 8 comme fi fekk te bëgg a dem xel koom dinañ fa taxawal oto yoo xam ni dina jële nit ñi fii yóbbu leen sa daaray Daaru Salaam ah ñu fas yéene euh, joyal ndigalul sëriñ bi te fas yéene euh, taseeg tawféexi sëriñ bi a ah, di sant bépp transporteur boo xam ni yaa ngi si Touba ak ñi ñu daan àndal démb ak bërki démb ñi ngi leen di tàllal loxo ah di leen woo ci liggéeyu xel Xelcom bii te xam ni ah di ginnaaw bi ñu ci wooyee dongay tër bi yëpp képp koo xam ni am na demukaay départ yi bari na ndax boo xoolee fii si eh, buntu kër Serigne saal yu Mbacké si jumaay Touba fu mel ni mooy bu naa fi maanaam am na départ daara yiñ fi lim yëpp fenn fu ci ne si gox yi si dëkk bi am na ay départ yoo xamante ni képp koo xam ni bëgg naa dem bu àjjuma jotee le 6 8 na fekk nga jekk taxaw fas yéene ñu dem Xelkom. ñu ngi ciy woo nag sëriñ Souhaïbou Sarr di jëwrin eh, ju mag a mag ci kër sëriñ Saliou Mbacké ci wàllan Sarr kon ñu ngi koy woo ci liggéey boobu sëriñ Lamine Kane moom itamit di jëwriñ ju rëy rëy ci kër sëriñ Saliou mbake ak mbooloom ñu ngi koy woo baax di woo sëriñ Xaadim Ndiané eh, ibnu sëriñ Dame Ndiané. di woo Serigne Pape Gueye transporteur ca diwaanu Thiès naka noonu ñu ngi woo Baye Mañaaw Jonn Touba Refon di woo Serigne Ousmane Sàmm ci Touba Xaahira moom itamit di ko soññ bu baax a baax di woo Serigne Cheikh Mbacke Lo di njiitul groupement transporteur yi nga xam ne ni ñoo yore benn yi waaye naka noonu la ñuy wooyee Serigne Pape Mbaye mi nga xamante ni mooy njiitu regroupement safooru benn yi di woo tamit Serigne Khadim Seck Baye Fall. di jëwrin ci kër sëriñ daam sekk ak ñi mi àndal ñëpp ci ay taalibe ci waa kër sëriñ daam sekk ci ndigal sëriñ Cheikh Fall sekk naka noonu ñu ngi woo sëriñ Ibrahima Ndiaye di transporteur moom tamit di chauffeur benn ñu ngi koy woo bu baax a baax di woo sëriñ Mouhamadou Ndiaye euh, ali aliya moom mm, mooy soññu sëriñ Mouhamadou Ndiaye aliya mooy soññu waa daayira minhajul huda ila mujibu nada ak waa daara ak waa daara yi Touba Xelkom euh, ya nekk saam yëpp sëriñ euh, Mouhamadou Ndiaye mi ngi leen di woo. waa clinique euh, Taysirul Asir docteur Pape Moussa ñi ngi koy woo ci liggéey bi taxawaay bu am solo boo xamante ne nii daana ko taxawee ñi ngi koy woo ci liggéey boobu. di woo bu baax tamit Baye Saliou Sall di sëfooru benn moom itam ñi ngi koy woo ci liggéey bi di woo doktor Strong mi nga xamante ne nii moo jiite ndaamaatu ci ci. ca hôpital ba naka noonu ñu ngi woo docteur sek doctor sek mi nga xam ne nii moo nekkoon xelkoom nekkoon fa taxawaay bu rëy rëy ci dongo yi di leen taxawu ñu ngi koy woo ci liggéey boobu di woo Baye Baye Nooru waa ahlu Nooru daar yi nii yëpp rek ñu ngi leen di woo ci turu Baye Nooru ñu ngi woo tamit bu baax baax. waa daayira diwaanu saalihin yi nga xam ne ni ñooy turandoo Serigne Saliou Mbacké yi te kenn ku ne xam seen taxawaay kon ñu ngi leen woo ci liggéey boobu boolem fa turandoo Serigne Saliou Mbacké nekk waaye ñu ngi woo Serigne Abdoulaye Ndiaye moom sëriñ Cheikh Saliou Mbacké cenn diwaanu Ndakaaru kenn ku ne xam na taxawaayam ci liggéey bi ak dëgg taxaw gi mu ciy def ñu ngi koy woo bu baax a baax di ko beral woote moom sëriñ Abdoulaye Ndiaye di taalibu sëriñ Cheikh eh, Ahmadou Mbacké ñi ngi woo waa daayira Nourul Mounir ñu ngi leen woo bu baax ci liggéey boobu di woo waa donay maam soxna Fat Jaxate ñu ngi leen woo ci liggéey bi kon liggéey bi aljuma la tombeek 6 décembre incha allahu rabbi tii ci kër Serigne Saliou Mbacké la ñuy déparé ak fu ab donga nekk rek wala jëwrin ñu ngi leen woo ci liggéey boobu ñu ne yàlla dafa dogal ñu ñëw fii te daaray Lagan ci njiital ndigalu sëñ Cheikh bu Ndoye Ridwan ñi ngi ciy woo sëñ moo sonaam mi ànd na ci liggéey bi muy waa jëwrin waa njurul di woo sëriñ Thierno mi nga xam mooy jëwrin waa Lagan di ko fàttali liggéey bi di ko ci soññi di woo sëriñ Moustapha Sarr Ngéejaan moom itam mooy seen jëw ñu ngi ko ci woo di ko soññi di ko fàttalite ak woo tamit sëriñ Bada Fall mi nga xam ni moo jiite seexi Baye faal yi nga xam ñoo nekkoon ci daara ji ba bàyyi koo fi ñu ngi leen ci woo bu baax a baax di ci woo tamit sëriñ Ahmadou Ndiaye sa mu nekk kër Maba Awa Ndiaye ak kër sëriñ Xoja ñu ngi ko ci woo di ci woo waa Ndoka Sidi ñu nekk ci tund lagan wi di ci woo Ndoka Sarr ak Malka Kurcel Mbul Kayel ak sëñ Fallou Kan Tewri ñu ngi leen ci woo di woo sëñ Moustapha Touré Ndaamaatu ak ñi muy àndal di woo waa Bakoura tamit ñu ngi leen woo ci bi di leen di woo waa Mboussobé sëñ Daam Ndiaye di woo waa Télé bu bees di woo waa Mbàkke tamit ci njiital sëñ Xaadim Jatara ak képp koo xam daal am nga passeport ak yéen ànd ñu liggéey bi ñu ngi lay woo ci liggéey bi di tamit ci wàllum transporteur yi xam ne doon na leen woo ku mel ni sëñ Baara Diop ñu ngi koy woo ci liggéey bi di woo sañ baay Njàngu Saar ci liggéey bi di woo sëñ Mourou Fall Daaru Manaan ci liggéey bi di leen sant baax a baax tam ci taxawaay yi passé di leen xaar tamit ci taxawaay yi nga xam ne suñ kanam. di wax rek li nga xam ne moom la ñu dëgmal muy liggéey bi nga xam ne yàgg na di am ñu di ko woote xam naa lu ñuy fàttali la waaye nit ñi fàttewuñ ko woon nag euh, dëppoog le 6 bi ñu dëgmal aju mooy suba ji bu dolli seeg jàmm incha allah fële ca Lagan euh, Lagan na xam naa ne day geneen wàll ci liggéey bi ndax daa xel koom yu bari dañ ko dul xam ñi nga xam ne dañ faa war di dem am na ay départ yoo xam ne waajaloon nañ ko ngir ku jóg war caa dem euh, foofe ca Ndulo ak fii ci Daaru Xafoor waaye ak ci. Mbacke Bawal xam naa nag ku soxla ci numéro yooyu boo xam ne ca nga bëgg a jokk booy ñëw su dee ndural la da ngay def 062 75 79 su dee fii ci Daaru Xafo da ngay def 77 568 99 76 su nekkee ne fii ci Mbacke la nga def 77 756 85 26 ñett jaaruwaay yooyu foo ci jaaree rek incha allah mën naa jàpp ndal ñëw ga. ñoo ngi nuyuwaat ñëpp te di ziare xam naa nag liggéey ba moom defe naa siiw na am mbàcc la ak roñ gerte ak roñ ngooñ kon na ko ñëpp waajal ñu dem defe ko dañ ko daan defee yàlla ñu ko dajante ngërëmul sëriñ bi. di amaan mbégte ci jàkkaarloog mbokk jullit yeeg taalibe yi di yëkkati ndigal lu bàyyi ko ci sëriñ Cheikh moom Cheikh Salih yàlla na ko fi yàlla yàggal tamit ko ak wér jëm ci mboolem jullit yi waaye nag mu teg ko ci loxol dongay tërbe yi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ Saliou ci liggéey bu mag bi mu doon liggéeyal suñu borom ñu laafaale itam képp koo xam ne soppeeb Serigne Saliou nga ak foo mën a nekk ci àdduna te loolu bu buñ ko waxee jullit ñëpp daj nañ ndax jullit ñi boo ci murid yi boo ci génnee soppee Serigne Saliou yi kenn du des ñoom nag nañu xam ne liggéey boobu ñoom la ko sëriñ bi teg seen loxo kon ñi ngi koy fàttali ñëpp le 6 décembre la ni ñu ko waxee mooy départ bi diggante Lagan ak xel Xelkom ñi ma jiitu nag tudd nañ ni ñuy demee ak fa ñuy fa ñuy bàyyi ko ñëpp dañuy soññ nag suñu mbokki dongo yi rek di wax ne fépp fu mën a nekk. na nga xam ne liggéey bi sëb liggéey la koo ci gis mu ciy yëngatu yow la cee dimbale waaye liggéey bi doo ngay la ko sëñ bi teg seen loxo kon nag jumtuwaay yi nga xam ne mooy tax liggéey bi egg mel na ñu war a mel bu ñu ko fàttee ci waaj wi muy ay saaku ay jeerukaay fourchette radu ak lépp loo xam ne mën naa yéwénal liggéeyu mbàdd li doo ngay nañ xam ne loolu mooy la nga xam ne bu ñu eggee mooy tax liggéey bi jëm kanam mboolem ñi nga xam ne nag daan nañu gunge ci liggéey bi tey soppee Serigne Saliou fu ci waay mën a nekk ñu ngi lay tàllal loxo di la xaar ci liggéey bi di la xamee ne liggéey bi ay cër la rek yoo xam ne dafa faa tege lépp lu ci waay jëf rek sab cër dana la topp ndax Cheikh Saliou daan na wax ne jëf lu rek ay sama wàll waaye nag yàlla dimbali na ma ba jëf ju nekk xam naa ak payam kon lu waay bëgg rek na nga xam ne pay ga moom jëf jaa ko fay jëlee kon yàlla nañu yàlla yombal lépp ñi ngi woo soppe yëpp nag xam naa di ci tudd waa Daara Nuuru Munirun ak waa Donay Maam Faat Jaxate ak mboolem soppe yi nga xam ne nii saa bu dong jugee dinañ jug ànd ak ñoom ñoom tam ñu ngi leen di woo ci liggéey di wax ne daal ndigal bu ma saan a jug murit day bàyyi lépp lu mu nekkoon doxalee ab sëriñam ab liggéeyam ndax ca loolee rek la aajoom di faju waykat ba dafa wax ne murit dafay roy saxaaba yi ngeen ji yonen te fonk ndigal gëm sëriñam na dof ya aboo bakrin uwaysun ibra faalun murit yaa ngoogu roy leen mbër yu mag ya jataay bii nag bu ngeen ko gisee niñ ko waxee rek mi ngi amee ci ndigalul sëriñ Cheikh Mbacke waaye nag jaar ci ki nga xam ne mooy sunu jëwriñ ñun dongay tërbee yëpp muy Serigne Saliou Sall bi nga xam ne mooy njiitul euh, donga yi ci moom lañ amele jataay bi ak ndigalam ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulahi di woo mbooleem ñi nga xamante ni ñooy suñuy kilifa ci tàmbalee ci kër sëñ Mor Kumba Kan ak kër sëñ Cheikh Modou Kan Siin di xalifa ba di Maam Kan ak Cheikh Amdi Moustapha Kan ñoo ngi woo mboolem waa kër sëñ Aliou Kan mbaaleen waaye noo ngi woo waa Touba ci jannatu Mahwa sëñ Saliou Ndiaye sëñ Cheikh Kane général ñoo ngi koy woo waaye naka noonu la ñuy waa Bonja ci ndigalu sëñ Sadex Kane waaye noonu lañuy ñuy mbooleem ñi nga xamante ni mooy waa Kajoor la ko tàmbalee ci Pekes Tibaar Jokkul Sugeer Njukki Ngéy Ngéy Lamsing ñu ngi woo mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk njompi ak njooko du dongo yi nekkoon ci tool yi rek ñoo ko jagoo waaye ñenn ñi dañoo nekkoondoo moom ci daara ji mu tarbiyee leen waaye ñi ci des ci seeni kaw yi lan la leen fekk tarbiyee leen te ñu sax ñu ëpp kon kenn ku ci ne na xam ni woote bii euh, képp koo xamante ni am nga yéene mbaa bor boo bëgg a fay ci Sëñ Saaliw bis boobee ña nga la woo ngir njariñ rek la te njariñul Sëriñ Saaliw mooy njëriñu sëriñ Touba te njëriñu sëriñ Touba yemul fenn. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatuhu. sant yàlla yont bi. nee na ginnaaw bi mu sant yàlla ak yont bi. sant sëriñ Touba. sant sëriñ Touba. lépp a ci ci ci baaxu sëriñ Saliou Mbacke. te nee na a jaar ci li may njëkk a wax nag moo di. nee na li a wax moo di. daa bëgg ngeen seeral daa bëgg ngeen seeral ko. sant sant na sëriñ Saliou bu wér. bi nga xam ne boole naa ak sëriñ nga xam ne boole na ko ak sëriñ Cheikh Mbacke yëpp. ak ak yépp yëpp. boole maa ko donge tërbi yii. nee na boole koog donge tërbi yii. ndax kat euh, bu ma dimbali tax. nee na bu dimbal taxee. bëgg ma dimbali moo tax. nee na bëgg koo dimbali moo tax. mu boole maa donge yi. mu boole koog donge yi tërbi yii. ndax ndax jaar jaaru ndax nee na fi ngeen jaar jaru fi. waaye nag bu yëgalee seen seen seen seen seen barke ak seen doole mën naa yóbbaale ku ne. nee na seen barke ak seen doole mën naa yóbbaale ne. kon noo ngi sant di leen nee na mi ngi leen sant di leen ñaanal. yéen dong tërbi yi. seen yéen dong tërbi yi. ñu mm, yàlla miy dimbale maa sama mbooloo mi àndal. ak mbooloo mi mu àndal. muy waa ko soxna Fat Jaxate. ya muy waa ko Fat Jaxate. góor ak jigéen nag ak ndaw. man ànd ak ñu mën a ànd ak ci liggéey bi ci liggéey bi. ngeen nangul ñu ko ngeen nangul ñu ko. boole seen waxtaan. nee nañu boole seen lépp. boole ànd. boole ànd. dem ca tool ya. lépp lépp seen baax nee na lépp seen baax ngeen ko maye. ak cant war na nee loolu ak cant war na ca. maa ngi woo ñëpp nee na mi ngi woo ñëpp. bokk ci waa soxna képp koo xam bokk nga ci waa soxna Fat Jaxate. góor ak jigéen. ñëpp nañ ko ànd dem nee nga na ñëpp fas yéene ànd dem ca liggéey ba. nañ ko daan defee. nañ ko daan defee. di am yëpp. di ànd di woo ànd jàmm yëpp. di woo bokk yëpp. di woo bokk yëpp. ñi nga xam ne am na am na lu leen lebal. nee na xam ne am na lu mu leen lebal. bis bii la bëgg ñu fay ko ci. képp ne maa bëgg a lebal. nee képp koo xam ne da nga a lebal. bis a lebal ma ci. nee na daa bëgg nga ñëw ci bis bii nga lebal ko ci. nee ndax nee na amul lu dul Serigne Saliou nee na sëriñ Saliou mooy sëñ Cheikh Mbacke. joxe na ndigal joxe na ndigal. ci gaa yu baax yi. bi bi liggéey bi jibsee. boole na ci. nee lu ngeen wax moom lañ wax. lu ngeen def lu moom lañuy def lu. fas yéene def lenn. lu ngeen waxul. noo woo xam ne kaay jëriñu rek la. nee na te xam ne na wax ni. man de man de man de man de euh, ku doon xew xew xew jaaxul ba. ku dem xel kom jaaxalu ba dem xel kom jaaxalu ko ku fa demul daal moom la xamul ku fa xamoon ne door euh, murid dem nañ xel kom mu bàyyi woote xel kom nee bëgg na kon ñëpp jëriñu nee na kaay leen bu kenn tardé bu kenn yeex na ñëpp fas yéene dem ànd ak yar ak teggin ni ko sëriñ bi bëggee ñu defee ko noonu taalibi rek bokk jàmm takkandoo woo ñëpp salaamaaleykum wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu yàlla na nga fi yàgg loolu te wér